waa PDS mais damay wax ne mais pourquoi Karim du ñëw ñu ne ma Karim dafa bëgg a xaar ba ñu génne la liste officielle de ba conseil constitutionnel génne la liste officielle des candidats c'est-à-dire maanaam après diggante 10 12 janvier mu doog a ñëw. ah bon ah euh, mu mel ni dafa am genre genre crainte euh, par rapport à la validation de sa de sa candidature. man de gisewuma noonu. noo gisee. toppatuñ ko dara. électeur est éligible. bindu war a wotee point E caution jot nga verser sa caution ñu ne parrainage nga pare parrainé lu ci des xam nga lu ma ci lu ma yaakaar ne moo ci des décision de góor. c'est-à-dire. décision yàlla fii ma toog te yàlla mu fi indi may mun a yow fi nga toog yàlla la de suñ toogaay bii du kenn ci ñun suñ borom la jiitu na suñu. jiitu dafa am amende de 138 milliards buy yow te ngaa bàyyi li ngay wax waaye bul tax ma pes la fu mu ko amee. fan la Karim Wade jëlee 130 millions. non mais décision de justice la. yow bàyyi ma bàyyi ma waaye. mais décision de justice la bul ma yëngal décision de justice fan Karim Wade amee lu leen 100 francs 50 waaye bàyyi ma waaye bu man bu ma non mais non non non mais maman loolu c'est les ma ne décision de justice la. waxoon waxeet du ñoo waxoon waxeet. non. dañoo dem changer la loi électorale. ma ne waxoon waxeet. joxaat Karim Wade la possibilité d'être électeur éligible mais mais mais condamnation beeg yëpp dara effacé wu ci ma yow may ma jàmm may ma jàmm ñun faru faru yàlla naa biir la da sa faru yàlla naa mucc du joxe bàyyi ma. amul faru yàlla naa mucc am nit di ko ngoro ne siiwoo mucc ci moom doo fa toog ba dara dina fa fekk amee lu leen dërëm mën naa ko waat sëñ Fallou. mais décision de justice. waaw décision yow bàyyi ma. bàyyi ma wax kon gëmoo décision waaye ma bàyyi ma laa wax li ma gëm mooy ameelu leen cent franc cinquante centimes dërëm ameelu leen ko mën naa ko waat sëñ Fallou nekk ma ci ministère yi xam naa ne Karim Wade doomi Ablaye Wade jomb naa def lu ñu koy reetaane billaahi wallaahi watallaahi ameelu leen dërëm topp nañ ko fu ne année commission rogatoire dem na benn bis ma ne ministre de la justice cinq milliards Singapour yi xanaa dugal leen ko ci seen budget bi anañu tôt ou tard la vérité finira par triompher metti na mu ngi mel na nga tam nit ndëmm metti na de waaye nag yàlla yàgg-yàgg day leeral jant amee lu leen dërëm cent franc cinquante centimes amee lu leen ko ci ministère yi ñu ko dénkoon amee lu leen cent franc cinquante centime ragal wujje rek yow da ngaa ragal wujje moo tax demoo sëyi loolu rek la. <laughs> non man bëgg na pare naa de. pare demal. <laughs> mais mais xam nga xam nga war a saar xam nga Sénégal politique dafa am réalisé. et, et la la démarche de Karim Wade très très très prudente xaar ba yëpp leer buy ñëw. waaye ku la wax loolu. mu mu mu mu mu ñëw. waaw ku la wax loolu. Euh, bi ñuy dem di wotee loi bi ca assemblée nationale on n'a nulle part fait fait mention. de cette histoire demande bi nga xam ne moom moo gàllu ci kawam gàllu ci kaw doo euh, dégg mukk ci àddina ñu ne Karim Wade kaay fay 131 bu ko waxee ba fay ko man doo ko mës dégg maa la wax lii. duñ ko ko laaj. Karim Wade ko amee lool ameelul di yooyu waxi tappale la. yooyu du teew ma parrainage amu leen am problème am ngeen parrainage euh, parlementaire euh, am ngeen parrainage citoyen euh, parti boo xam ne. bu bu compétirul minimum minimum il s'en sort avec trois cent mille voix et c'est ça veut parti organisé et douze ans après la perte du pouvoir ça veut dire que vous êtes organisé. man man. man problème minimum minimum boo leen daanoo ba daanu. ay yow gune gi nettali woonu ko. non boo leen. boo leen non non non ci élection boo leen daanoo ba daanu élection yi fi am yëpp nga xam ne Ablaye Wade ñëwul parti bi moo organisé wu da ngeen da ngeen di am trois cent mille quatre cent mille. quatre cent mille et quelques donc man dutewuma ci seen capacité am parrainage le PDS c'est un grand parti. trop euh, boo leen amul parrainage citoyen sax am ngeen parrainage. Euh, parlementaire. man kay benn écueil rek laa xalaat. dara amu ca dégguma fen ñu poser problème bi mooy le traitement de cette amende là. dama ne doo ma sa dégg ne Karim Wade fay na 1 milliard bay fay 138 milliards yàlla mii gëmul nelawul maa ko waxoon daaw weddi naa ko ren lan la où problème nit ki boo koy jàpp Karim Wade li ñu wax bis yi jabaram oto yu yàqu ya marmite yu tilim ya moom lañ dajale boole koog Bourgi waaye man nag juddoowu ma Dakar waaye Abdou Ruy Abdou Karim Bourgi du n'importe qui moom moom lañ ko tuddee yow mas ngaa gis kër gi yaa ko moom moomuma ko nga ne prête noo la loolu la ñuy loolu la ñuy dóorale ni sàcc comme tey ma ñëw sa kër gi rek ñu ne maa ko moom te xam ma foo jënde saw kayit xam ma foo ko defee waaye Abdou Karim Bourgi bi ñu koy tudd ci Sénégal booba Karim Wade juddu wàll booba mu ngi école primaire loolu mooy condamnation loolu mooy condamnation ah waaye may mun a bàyyi ma waaye bàyyi ma ma happiness